ndax na xasida yi dafa am njëriñ moo tax ñu ne fu ñu dem bu ñu dem rek di wax ak ñoom waaye nañ leen may ci barkeem xasida yi nga xam ne waxoon ne xasaa xasaayidi min muxjizaatil muntaqa sama xasaa yi dafa bokk ci kéemaani yonent bi yonent bi suñu borom da koo defoon muy koo xam ne daawul bind ci loxoom Sëñ waa wax ne looloon maa ko doon ci moom la mu waroon bind maa ko doon ci moom moo tax mu ne karaamati xatu yadi kon bind bi karaama la xejul ci doomu aadama lu bi mun a waroon bi nuuril wax yi waxaada lii xayral huloomi mux yi sama xel mi leer bi doon ñiital yonent bi sallallahu alayhi wa bu wax yu bi ñëw leer boobu moo may ñiital may bind xasida day may bind moo ñu tax moo tax fu ñu dem ñu bëgg ko faa jàng waaye message bii moo ñu fi indi waxaat na ko feneen ne ko anarta lubbiya bi nuuril wax yi yow sama borom leeral ka sama xel ci leer bi doon ñiital yonent bi ci wax yu bi wax ne sama xasaay li kat ñooy sàmm samay samay samay dëkkandoo fu ñu koy jàngee ña fa nekk di ko dégg sax xam nañ ne moo leen di aar kër yiñ ma sancal fu ñu jàng xasida malaaka yi wottu ak sàmm mbindeef yi dañ fay wat ilaa binaa i saarawul bu faza wastahmawul awzaana wal alfaza daal di waxaat ne ilaa manazili saarawul bu faza wastahmawul awzaana wal alfaza nee na samay kër mooy daayira yii ngeen sanc ci dëkk yi bu leen kenn tere jàng xasida ci ko nee na fu mu malaaka yi aar mbindeef yi dañ fay wàcc di déglu peese yu neex yeeg daaj yu neex yi ngeen di jàng nee na boobaa ku fa jege ci ab julit di ku baax ñu ñu lay aar loo xam ne day àgg di yëngal xolub waa badar xaajat xasaayidi xuloo ahl badrin wax na ko xaajat xasaayidi xuloobal anbiya xaajat xasaayidi xuloobal xamala xamala mooy juróom-ñetti malaaka yi yenu aras sëñ tubaa nee na fu ñu jànge samay xasaay seen xol day jóg ñu bég ba mel ni cedd bu ñu bàkk maama waa badar ya xare woon ànd ak yonent bi noonu lañ mel waaye gaa yu baax yépp muy saalihiina noonu lañ mel fu ñu ko déggee dañu kontaan moo tax muy loo xam ne lu am njëriñ la loo xam ne barab bu ñu wàcc balaa ñoo wax ak yeen ngeen déglu ko waaye message bii dëgg-dëgg mooy li ñu tax indi kon nag Thiès te jii ñëw nañ ci yéen woo leen ci Serigne Touba daayira yi nag benn message la ñu wax mooy daayira boo gis Serigne amul benn daayira boo xam ne turam wax leen kan mooy nuuru daare ni kan mooy nuuru daare leeru ñaari kër yi kan la ku dul xaadimu rasul kan mooy jaalu batul maraxi bi ku dul sëñ Tuba kan mooy mafaatiwul bishri ku dul sëñ Tuba kan mooy tasawudu shubaan ku dul sëñ Tuba kan mooy majmuhu nuurayni leeru àddina ak alaaxira ku ko dajale ku dul xaadimu rasul kon dañ ne daayira yi ay tur lañ yoo xam ne benn jëmm la ñuy woo muy Serigne Touba ay mbuub la la ñu sol nañu def coaliser nag yëkkati ko ca kaw àddina sëpp gis ne kii moo doonoon yonent bi kii mooy ki nga xam ne fu lislaam bëgg a àgg bu ñu àndee ci moom lislaam àgg kon tey jii yéen ñëpp woon